ay athlètes yoo xam ne dem nañu def jaloore remporter médaille d'or wala médaille d'argent wala médaille de bronze te état du Sénégal yore leen xaalis depuis 2007 ba léegi Matar Ba am na lu mu ci sumb woon commencé fay mais léegi boo demee ci comité olympique dina leen wax ne am na ay athlètes yoo xam ne yore leen xaalis ba léegi te xaalis boobu noonu jarul dara du xaalis bu bëri équipe nationale du Sénégal déplacement am déplacement avion spécial bu ñuy loué chaque déplacement lu mu tuuti tuuti tuuti c'est 200 million gis naa benn xale bu xarañ maa ngi koy topp depuis 2007 mu ngi tudd Louis François Mendy kooku tey jii état du Sénégal lu mu soxla te état du Sénégal moo ko laaj lan nga soxla ñu xayma léegi moom ak staffam ak fédération sénégalaise d'athlétisme 23 million kese pour mu mun a préparer les Jeux olympiques de Paris li comité olympique waroon def yëpp def na ko li ci des mooy ñu indil ñu beneen deuxième Amadou jabaa te man gën naa ne xale boobu bu ko jàppalee li ma gis ci moom du ma ne 2000 Euh, deux mille deux mille vingt quatre bii de dina indi médaille waaye bu ñu ko toppee ba deux mille vingt quatre fii ba deux Los Angeles incha allahu rabbi dinañ indil jaloore mu nekk deuxième fois quand parce que depuis mille neuf cent quatre vingt fexee ba am une deuxième olympique.